bisimilah ah, maa oh, ngi leen di sant maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di sant ñëpp di sant sëñ xumma di waa assis délégué euh, marché bi Sini Dieng santit euh, Alaaj Fall mi nga xam ne moo fi teewal marchand ambulant yi lii ñu gis metti na ci xol mënuñu lu dul wax leen massa nde lii ku jàkkaarloog moom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 dafa doon lu am solo ci maanaam mbir mu demee nii waaye day fekk rek ñu bàyyi xel ne mënuñoo dëkk ci di massawu ay commerçant parce que commerçant mooy yorub réew jënd ak jaay dafa yorub réew mënuñoo dëkk saa su ne ñuy masaw mënees na koo fàggu ndax dañuy wax ne seenu nekkin yéen donc yéen a mën a fexe mu soppiku inna allaha la yuqayyiru ma bi qawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim kon suñu borom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 mi ngi ci suñu kanam mi ngi ci suñu ginnaaw lépp it loo xam ne ñun warees na cee taxaw bu ñu defee évaluation bi ba pare lu ñu ci mën lu ko taxawee ak yéen ànd ko ak yéen ngeen xam ne eh, suñuy mbokk taalibe ngeen te jaadu nañu jàppale le lii daal mooy kàddu yi